yéen waa prestige bu Thiès abu ci boloo leen di woyal xam ngeen seen site bi naa def lu ñaaw a ñaaw man de bëgg naa leen du yàgg ba ngeen di ñaaw ca kanam ak kanami Cheikh Ibrahima kaay waay xanaa xamoo prestige a xew ñoo xew ci jamono te bilaay xola xibaar yi wër yëpp fii lay jaaraan. salaamaaleykum Sénégal salaamaaleykum le monde entier salaamaaleykum Afrique. man Alioune Mbaye Nder maa ngi ci biir Prestige Thiès suma région région de Thiès ma dëkk Tivaouane kon Prestige mais beaucoup de Prestige. Euh, jërëjëfiti Prestige bu Thiès sit internet bu bees xanaa du yéen a nekk benn dëkk ñaari gaar kuy tukki dem Tivaouane fu muy jaar fu muy kuy dem Touba fu muy jaar kuy dem Ndar fu muy jaar. et Thiès rek s'appelle Prestige moi et Prestige jusqu'à la fête continue jusqu'à Noël ordu Teglen, c'est ça la Sénégal émergence